ndax mbooleem ñi jëkk jébbulu ci sëriñ Touba ak ñi ci mujj jébbalu lenn rek lan doon sàkku mooy waaw góori sëriñ Touba waaw góori sëriñ Touba Cheikh Fall fii lañ ko yeewee bi sëñ bu mag bi sancee eh, dëkk bi mu gor fi mu ne ko waaw góor sëñ Mbacke Cheikh Mbacke Diop Kalsaan moom kañ la am waaw góori sëriñ Touba loolu li naan tayyu tayyu ak taxañ moom taxañ googu la am léegi nag taxañ googu bala mu koy tudd moom damay indi benn misaal ndax lu may wax lu ne day leer Euh, dafa am ci jamonoy Cheikh Saliou Mbacké sëniñ Saliou bi mu laajee tout tànk yi am na mag moo xam ne dafa daanu ba yëg ne waruñu koo jox rek tout tànk yi ab taawam la ko jox te njëriñ la dëkk yor pharmacie yor kër gi takk soxna mu xëy womat ko woo ko xóom too ne ko ndax danga nangu ma jox la Serigne Saliou mu ne ko waaw mu ne ko nan teggee fii daa doom ji sikki sëkkwul daal koy jox caabi ji góor gi def caabi ji ci poosam ñu ànd dugg ci oto ñëw ci Serigne Saliou mu ne ko kii sama taawa dama la koo bëgg a jox ndeke ne sëñ Saliou nangu gi la yëg nangu nangu taaw bi la yëg ndax taaw bu demee samp kër ba noppi nga bëgg mu wuri toot yi loolu day metti sëriñ Saliou ne dënn luy tolloog fukki minit ak juróom fukki minute ak juróom la sëñ Saliou ne dënn ne ko tàllal say loxo mu tàllal mu tafli ko ne ko dellu njëriñ fii nga toog sëriñ Touba tërbiyee na la wàccee na la fi mujj na boo gisee bàyyam danaan ko ana ana ana borom tërbie gu gaaw ana borom tërbie gu gaaw ndax xaw a dee muyul kenn dara xaw a dee muyul kenn dara fii ne bi ngay lax saa yu dem ci dem ci daara ji ngërëmul yàlla rek ngay wët ngërëmul yàlla nag xamoo guddi nga koy am wala bëccëg wala kañ sëñ sëriñ Mbàkke Jóob Kalsaan nag tayyu googu la am taxañ googu ana nan la ko amee sëñ bu mag bi bi mu ñibbisee ci géej gi dafa wàcc Ndakaaru daal di ñëw Ndar dugg ci saxaar ñëw Louga taseeg ñeenti fanikoor gi mu daldi di ñëw bari jàmm siise kër sëñ Jula siise juróomi waaw sa dëkk maam te fekk ne bi mu wàccee Louga foofu saxaar amatul mag ñi waajal nañ ay fas yu bari ba àgg ci ni kenn ku ne bëgg saw fas sëñ bi war ci waaye sëñ bi mu wàccee dane ana Amar Samb ana Amar Samb ñu daal ne Amar Samb Amar Samb mu daal di ñëw sëñ bi ne ko ndax waajaloon nga aw fas mu ne ko waaw mu ne ko noo ko tuddee mu ne ko Ridwaan mu ne ko fas woowu la ma yàlla waxoon ne ma boo wàccee ko war a ko Ridwaan daal di war fas daal di wàcc sa dëkku maam bi bëri jàmm si si ñeenti fan koor ga juróomi fan koor ga mu ñëw ci ndaam sànnoo bi mu ñëwee ndaam sànnoo si nag ba mu fa amee ay fan la ko ak Cheikh Ibrahima Diop Masar dikkal dikke ko dikkeen woo xam ne tey dañuy màggalal sëñ Mbàkke Jóob Kalsaan waaye kon ñu takkar ci ko waaye dañuy lem waaw ngir dugg si sëñ Mbàkke Jóob foofu sëñ sëñ Cheikh Ibrahima Jóob Masar sëriñ ba la ko taxoon a jóg sëñ bi faj ko mu wëlbatiku jébbalu ci moom 1902 1904 kon ñaari at rek lañ ci tegaat Cheikh Mbàkke Jóob Kalsaan gane àddina boo gisee sëriñ Mbàkke Jóob Kalsaan Cheikh Abdoulaye Ahad daal ko wax naan ko da bokk ci mag ñi moom sëriñ Abdoul Ahad ak Cheikh Abdoul Khadir ñooñu sëñ Mbacke Diop Kalsaan mage ne leen fukki at ak benn fukki at ak benn ku ko koo ko mage mu ne la mag nga waaye Cheikh Ibrahima Diop Masar ku ko gën a dégg Serigne Touba amul ndax keroog bi mu ganee àddina moom Cheikh Mbacke Diop Kalsaan te xamuñu nu muy tudd te amoon na mag amoon na mag sëriñ ndax kii moom sëñ bi dafa joxe boppam mu am ko kon léegi doomi murit la mu ñëw ci sëriñ bi ne ko tudde naa la koo xam ne bala nga koo gis day bindu kaamil yóbbu la bala nga koo gis ci saayir maa ngi jégalu bala nga koo gis ci saayir day bindu kaamil yóbbu la loolu la ko Cheikh Ibrahima Diop Masar wax bala nga koo gis ci saayir xoolal loolu waxin wu teggin woowu sëñ Tuubaa ku xam ne ne ku bëgg gis-gis la léegi Cheikh Mbacke Diop Kalsaan sëriñ bi ci boppam dem fi gànnaar ñëw Thiène ñëw Njaaréem 1912 12 ci fan yooyu rek. sëñ waajuram ànd ak moom topp ab kaamila ba sëñ Mbàkke Jóob mooy nett li may dégg amul amul bu doon ab addisa du ma ne toxale naa ci diw sëñ Mbàkke Jóob nee na ñu dab ñu topp kaamil bi mu wow koŋ bi mu ko toppee ba mu wow koŋ nee na mu wët ku mën a defar jaafura ndax alxuraan lu tedd la dama koy def ci defukaayu der boo xam ne daf koy dessin defar ko ba tàpp ko ba du xeeñ ba defar ko ak foo xam ne da koy yor waaw waaye foofu bind yi ñu ciy jànge mooy sëñ tubaa ku seer la fi ne sëñ tubaa ay code rek la xaw a dee muy ci kenn dara ñaari fan wala benn fan comme noonu kooku doon tërbiye woo rek fukki minute ak juróom mu tërbiye wu wàcc dem ñibbi kër baayam fii la fii la ñuy woo euh, foofu sëriñ Mbacke Diop wax ne bi ma bindee kaamil bi ba mu wow Cheikh Ibrahima ma Massar topp ko wëtal def ko ci jaafura nee na damaa woo ma ñëw ci néeg nee na mu ma mel ne siit buy war a sëyi nee na mu ne ma foofee nga jëm kët la ma fa diggee woon mooy sëriñ bi du la gis ci sayir te bindoo ab kaamil waaye foofee ma lay yóbbu dama laa bëgg a wax lafane foofe ne ma lay yóbbu dama laa bëgg a wax lafane fa boo boo demee bul bëgg bul bañ boo demee bul bëgg bul bañ leeru yàlla moo fa ne bul bëgg bul bañ nee na ndeke ne waxi wàlliyu lu mu la wax boo demee ci kanam da ko gis nee na ma daal ciy jànge ne kon su ma demee lu sëñ bi wax rek daa koy jiital lu sëñ bi wax daa koy jiital waaw bisimilah léegi soxna yi soxna yi eh, macha allah waajtaay wi rafet na léegi nan ko mottilee rek déglu Cheikh Mbacke Diop Kalsane bu ko defee dana gën a dana gën a taaru su boobaa ñu ngi ñaan ku déglu te nekk cib sëy sëy ba bu mu rëngi-rëngi na nga ci am ndam ku ca nekkagul na na am ëllëg bu baax bu mën a muñ te bari xaalis te nangoo joxe loxo ba bañ a dagg te may la jàmm sëriñ <laughs> euh, Mbacke Diop wax na ne bi ma bi ma àndeek Cheikh Ibrahima Diop Masar xam sëñ Ibrahima Diop Masar ku doy waar la ndax da dimbalee ci sëñ Touba ndax sëñ tubaa bu masaa tëju weer su ñëwee dana tijji ni muy def mooy day laxasaayu bu dubbee dëkk bi dëkk bi laa xam lay laxasaayu tàmbali di yëkkati bu ñëwee du jox kenn loxo ak loolu rëy rëy de daraja doo jox loxo te gisu sëñ bi Cheikh Ibrahima Diop Mbacke sëñ nee na ma ànd ak moom mu laxasaayu di jàng di yëkkati wayam yii dan ne koo yëngal mu yëngu nis kii rek ñu dégg tëll tëll ji ndek ne Ahmadou mooy mooy ubbi di sëriñ bi ubbee Cheikh Ibrahima Diop Masar àgg suuf jox ko loxo ne ko ko ma la tuddee woon de tey jii nag laa bëgg nga gis ko ci sayir la ma diggee woon it def na ko mooy bind ab kamil kamil baa ngi nii keroog am na tur woo xam ne ba nëgë ni fi nekk gars yi xamuñu ko te sëñ Mbàkke Jóob Kasa da ko daa tudd tur woowu mooy bi ko sëñ tubaa tuddee tey danaa ko tudd fii euh, sëñ Mbàkke nee nag bi sëñ bi ubbee kamil bi ñetti yoon xool ko ab yàq nekku ci mu tàpp ci dënd bi ne ma ahmadou yaa bind lii mooy ahmadou te sëñ Tuubaa gis sëñ Tuubaa ahmadou mooy tur yu mu gën a bëgg xaadimu rasul Mustafa lépp baax wa inni ahmadou bi muy bind bi muy bind nuuru daarayni lu mu bind rek ahmadu lay wax mu ne ko ahmadu sëñ Mbàkke Jóob nee ko nee na sëñ bu mag bi ne ma ahmadu yaa bind lii ma ne ko waaw Mbàkke maa ko bind mu ne waaw góor xoolal bis bu njëkk bi ci la dégg waaw góor yi sëñ Tuubaa kon bu ko nekkoon dellu masar toog ndax Cheikh Rafal fii bi muy rey boppam waaw góor sëñ Tuubaa rek ku taxaw du rey boppam sëñ Mbàkke Jóob nag ñëw ci première jour bi dégg waaw góor sëñ Tuubaa su ko masaa wax sax day ndeysaan day mujj tàggoog sogom ndax moom daa séentu sëñ Tuubaa mu ne man ba ma déggee waaw góor sëñ Tuubaa rek laa xam ne du ma gàlli gàlli de sëñ bakk Jóob wallaahi hasim gàlli wut sëñ Mbàkke Jóob kenn ku ko ëpp cër amut yowmal xiyaam yowmal xiyaam képp laay gis kay ñu ne ma kee ko ëpp cër ma dog ko nangu loolu tax ma ne su ma ciy wax su ma sañoon du ma bokkoo moom dara ndax day mel ne dama ko yëkkati te moom yëkkatiwu ma ko ki nga xam ne yàllaa ko yëkkati muy Serigne tubaa moo yëkkati sëñ Mbacke Diop ci bis bu njëkk bi la ne ko waaw góor nee na ma xam ne du ma gàlle waaye la ko Cheikh Ibrahima Diop Masar waxoon dana ko jariñoo mu ne ko waaye damaa bëgg nag nga bindal ma beneen kaamil damaa xamul nag dangay ngay dellu Masar wala da nga ko bindee fii sa kër baay sëñ Massamba ndax xamoon na sëñ Massamba ni mu jaxasoog Cheikh Ibrahima Diop Masar nee na ma ne ko foo ko fi defloo rek ndax nee na yo ma waxoon ca néeba boo demee bul bëgg bañ ma ne foo nu ko fi defloo rek nee na loola moo ko may tawféex yi mu yaru ci sëñ Touba mu ne ko kon toogal fii ma boole ak ma Massamba mu jox la li ngay bindee mu toog nekk kër sëñ Massamba waaye nee na am na waxtu woo xam ne lu mu la bind bind lu bu xéwlu jotee da ngay ñëw moo la koy joxal boppam sëñ Touba berneel sëñ Bakka Diop ba tey nee na ba benn bis mu nuy berne ci ak lëndëm waaye ne lu mu lëndëm lëndëm du jaawale kenn mu romb ma rek yor ab naaf bi yére ne ko mëpp ci sama bopp ne ma Ahmadou barkee loolu lii nee na fekk na cere baraay lañ doon jëfandikoo yu neex waaye nee na fii daa mel ne ay gobar ak i jeesi nee na ma daal di jooy daal di jóg dem toog nee na sama sëriñ si nga xam ne ñoom laa nekkaloon kenn ku ne barkeelu ca yow gis nga ko ba tàyyi am na am na mbubb moo xam ne am na mbubb moo xam ne daay sëñ bu mag bi daay sëñ bu mag bi mi ngi am na mbubb moo xam ne daaj ji ci boppam ak mbalaani ñagg ak yeneen i secret barkeeloolu lii sëñ Mbacke Diop li tax Cheikh Abdou Lahad ne ko ci mag ñi nga bokk xoolal koo xam ne 1912 ñëw nga jox ab joxeb kaamil ñu lay bindiloo alxuraan kaamil bu jeex nga ñu bindiloo la kaamil bu jeex ñu bindiloo la ba 1927 mu fekk fa nga xam ne ñaar fukki at ak ñett bi sëñ bu mag bi ñibbi si fii fekk na sëñ Mbàkke Jóob Karsan am ñaar fukki at ak ñett 1904 la gane àddina 1927 boo ko xoolee ñaar fukki at ak ñett kon kon booba xàmmi na te fendi na sëñ Mbàkke Jóob nee na awma ci lu dul daal ñun doomi soxna yi ñu xëy dugal ñu ci poto andi nu fii dina nu jàngloo alxuraan te alxuraan ji dañuy wax ni kat lu ngeen ko jàng-jàng nee leen ahmadu la lu ngeen ko dee jàng daal nee leen jox nañ ko ahmadu nee na ñu ber na nangu ñu agsi ci jumaa ji ba delloo leen njéeréem ne leen borom kees gi moo ñibbi tuubaa sëñ Mbàkke Jóob Kalsaan xoola loolu maanaam sëñ Mbàkke Jóob Kalsaan daa am sëriñ Touba du ma ne xool lii bonus bii di tigo di def sëñ Mbàkke Jóob Kalsaan ko ñëkk am ay 100 pour cent 200 cent moom moom moom 1000 pour maanaam 1000 pour cent la am ndax am na benn occasion waaw góor sëñ Touba sëñ Touba tànnaloo na ko binduloo ko alxuraan mu di ko bind ba 1927 mu amaat xaas si sëñ bu mag bi ñibbi si mu bokk ci ñi doon jàng kaamil waaye bi mu delloo sëñ Massamba dana ko kaamil bii nga doon bind day na àgg soo àggee kaamil bi ngay jébbaloo ci sëñ Mourou Moustapha nga jébbaloo ci sëñ Mourou Moustapha xoolal sëñ Mbacke Diop li ko yàlla defal. li ko yàlla defal bu nu am benn complexe waxtaane ko taxul ñu xeeb cërub kenn xeebuñu kenn de waaye li ko yàlla defal man dégguma ko fenn xam nga lu ko yow jébbaloo nga ci sëriñ Touba ñu ne la bind ka eggaleel kaamil jox ko sëñ Mourou Moustapha jébbalu ji nga xam ne taawub sëriñ Touba yow sëriñ Touba bindal nga ko ay kaamil jébbaloo kaamil wëlbatiku jébbaloo kaamil ci Cheikh Mourou Moustapha waaye nag nga xam ne sëñ euh, sëñ Mbacke Diop Kalsaan euh, lii mu am ba àjjana du dog doo gis kenn xoolal ci àddina bi doo gis kenn ku sëñ Mbacke Diop Kalsaan di ko yërëm wax ne ku ma ginnaaw doo gis ku ma tane wax na ko ba tàyyi ma dégg ko barke sëñ Touba waaw kooku mooy te li ko ko may mooy daa seewoon sëñ Touba sëñ Mbacke Diop Kalsaan nee na toog nañ njëriñ nee na kenn ma tiliwul ndax booba da téeméer la ne maak Mbàkke ñu ngi mii ak sëñ Cheikh euh, mi koy dawalal sëñ Cheikh Diop ak waaw sëñ Cheikh Anta ak ñu baree bari sëñ Fallou Diop ay boroomi xam-xam jóge Ndakaaru di di di di gëstu ci mag ñi bëgg faa ñëw dane waaye dane dane ba ñu fee ñëw nañ leen wax li fi ne ndax ñun lu leen wax ci sëñ Touba rek ci sëñ Touba leen ko déggee te ku ci sikki sàkk tàbbi sa war a waaye mujj ñu ñëw ñëwuñu keroog sëñ Mbàkke Diop dafa tàng ba wax ñu loo xam ne mosu ko wax man Mbàkke maa toog ci njëriñam sëñ bi tëju ba mu yàgg mu ne tël daan ne sant leen yàlla ba muy ñetti yoon xam ngeen lu tax ma leen di sant loo yàlla ñu ko ah, Mbàkke boo ko santaanee de war na mu ne man Ahmadu maa moom àjjana ku ma neexul doo ci dugg nee na loolu sama nopp bii la dugg te loolu ku ma ko wax soo ko sikki sàkka tabbi sa war man Ahmadu maa moom àjjana ku ma neexul doo ci dugg sëñ Mbàkke Jóob Kasaan loolu tax sëñ Mbàkke Jóob Kasaan ni mu doon doxee ci sëñ Tuubaa du ay làmbatu maanaam ndax ñun ñëpp na lañ bëgg ñun ñëpp faju aajo lañ bëgg ahmadu nag di faj ajo moom nag mu jox mu seey ci sëñ Tuubaa li gënoon a jafe nag daa seey ci sëñ Tuubaa ndax bi mu noppee gis sëriñ bu mag bi daa defee ne ab liggéey mi ngi doog a tàmbali Cheikh Mamadou Moustapha waaye bi mu noppee gis Cheikh Mamadou Moustapha daa defe ne ab liggéey mi ngi doog a tàmbali ci sëriñ Fallou bi mu noppee gis sëriñ Fallou daa defee ne liggéey mi ngi doog a tàmbali ci Cheikh Abdoulaye Ahad te ku ne xam ne Serigne Abdoul Ahad du naq-naqal kenn Serigne Abdoul Ahad fii ci belal sëñ Mbacke Diop Kalsaan waroon na koo ganale sëñ Abdoul Ahad mënut a ñëw jattu daal di yónnee ay ndaw mu ne ma ne Serigne Mbacke Diop Kalsaan nag fi ma ko yéeme mooy gis nga Serigne Touba xaw a dee boo doon boo taxawoon ci naaj bi du la may dara connexion rek la laaj pas-pas connexion bi mooy pas-pas pas-pas boobu nag sëñ Mbacke Diop da koo teel a am. bari la ko ba nga xam ne musta am dongo bu yaafus sëñ Mbàkke Jóob Kalsaan musta am dongo bu yaafus dan daa wax ne amul xol li tax ñu naan amul xol mooy dan daan mbayam du jeex ndax tooli sëñ Tuubaa yi da koy bay bay toolam yi muy yut sëñ Tuubaa dem bay tool sëñ Seexu Balla bay tooli keneen ak keneen loo tax ñi mu àndaloon danoo mel ne ay gaynde li ciy tegtal mooy fii ci keesam bu njëkk gii sëñ Fallu Mbàkke dafay ñëw ak bot yi nawet bi mu egsee ci bàyyi Seex yam daane ko andi sëñ Mbàkke mu ne ko mu ngi ci biir mu ne ko wol ma ko dama ko soxla mu daane ko borom jamono sëñ Mbàkke Jóob nag boo bëggee jubóog moom doo sàllawlu doo tudd turu Serigne Touba doo tudd turu ki fi ne mi ngi mel ne sëñ Mountakha ñun ñoo naan sëñ Mountakha waaye borom jamono rek lañ ko waroon di wax sëñ Mbàkke borom jamono rek lay wax Baye Cheikh Gaye ne ko borom jamono moo la soxla mu ne ko kon de xanaa ñu waaj xanaa ñu waaj mu ne ko mi ngi ci kees gi bi mu ko mi ngi ci kees gi sëñ bi ne bëri dafa dañ gàllu bi bi mu génnee bàq bi dafa jël kaalaam lal ko dox ba ci digg kaala gi taxaw ndax moom euh, garaad yi nekk fii moom moo ko moo moo ko moom fi ne boo jëmee ci yàlla te na doo wàcc doo àgg ci yàlla sëñ Mbàkke mu nekk ko sëñ Mbàkke sa sa sa sa ponkal yi keroog néew ko sa dong yi sax sa ponkal yi laa bëgg ndax dañoo siiwoon ci mën a liggéey sa ponkal yi laa bëgg ñu dem ci tool sëñ Tuubaa yi bay ko ndax tool sëñ Tuubaa wurta booy fii ci Aliya sëñ Mbàkke na ko léegi sëñ Mbàkke nee na li muy gaaw gaaw sëñ Paul leen fa jiitu ndax oto la yor bi ñu weeru koor la bi ñu di bay sëñ Fallu daan leen bayloo xam na seen gaawaay sëñ Fallu ne ko waaw sëñ Mbàkke xanaa dong yi danoo woor mu ne ko waaw mu ne ko nan na ko tipp liggéey sëñ Tuubaa gën a gaaw nan na ko tipp waay naalu sëñ Tuubaa bi wuru fee nekk di di booy booba jumaa ji li sëñ Fallu tàng tàngoor woo xam ne nu mu ko mën a àggale rek dana ko àggale léegi ñu daal leen di saafal ay café defal leen ay xeet xeeti bernde ñu mel ne nag ay malaaka bàyyi seen ndiir mii bàyyi seex mais saxoo woon na xam nga jaar ci daara doo am complexe mag ñi dañ daa daggante sax ay saaga bàyyi seen ndiir daana def bi mu sampee kër ba noppi bàyyi waaw bàyyi sëriñ bàyyi seex ndiir mi bàyyi bokk na ca donga ya ak El Hadj Matar Mbaye ak Mbayta El Hadj Omar Tall gaa yu baax Baye gaa yu yëpp. ak ku ma tudd ku ma tuddul ci jamono yooyu sérénage jamono yooyu waaw jamono yooyu bàyyi seen nag di def bi mu bi mu sampee kër bis bi nga xam ne sëñ Fall nee na woon nan ko nan ne ko tipp liggéey sëñ Tuubaa ko gën a gaaw foofu maanaam bu fa àggatee dagg kooram lakk beñe ñu ne ko sëñ ndiir wàcce ga ca daara ja bu yàgg del del woor ba mu mat waaye am ku am tontu la gis nga xaw a dee mayut kenn dara bàyyi sëñ moom mas naa defar ab càkkar bu rafet daa xereñoon ci bant waaye keroog bi mu ko joxe sëñ Mbàkke Jóob Kalsaan càkkeer boo xam ne góor dëggun ko dana ko sëriñ mu ne ko Mbàkke mun ne ko Jóob mun ne ko sa càkkar bi danaa la ko sampal ci àjjana bàyyi seen dir ne leen yéen ñi kenn ku ci sëñ Mbàkke Jóob tudd tudd àjjana amut man mu tudd ma ne ma dana ma sampal am ne ngi naa ma daggal sa koor nangam sa koor gi daal di dagg ay ay nangam nangam sëñ Mbàkke Jóob nag li ma ko gën a yéeme mooy doomi sëriñ Tuubaa yu góor yi ak yu jigéen yi la yemale woon nekk nan keemeer ku wormaal sëriñ Touba la ndax soxna Sooda Mbàkke musu koo sàllawlu soxna Mariama rek la daa wax lu mu commencé defe li lu mu rëy rëy danaan dañ ciy liggéeyal sëriñ Touba ma ne dañ ciy liggéeyal sëriñ Touba dañ ciy liggéeyal sëriñ Touba wormaal ko tabaxal ko moom képpit mooy ki nga xam ne moo dëkkoon ci tabax sama maam ak ñoo ñëpp ay donga leen noonu dongo boo xam ne bu nu amee fukki dërëm jox leen suñ ko amut ñu yalwaane waaw waaye nag sëriñ Touba moom balaas boo ko teg rek mu fees bëgg gi mbëgg sëñ tubaa ndax fi ne léegi da ngay dégg ku naan tàmbali ci sëñ bi yem ci sëñ bi aka jafe sëñ Mbàkke Jóob Kalsaan ci boppam bu ma doon laaj kan moo tàmbali ci sëñ bi yem ci sëñ bi mooy Seex Mbàkke Jóob Kalsaan benn seconde bu boo xam ne mas na koo dugal fi barab bu sëriñ Tuubaa moomut amut gis nga bu ñuy wax dara ci sëriñ tubaa ba nga ànd ca daan ma ne yow dañ laa dimbali gone nga waaye dañ laa dimbali waaye loo boo sëqkoot bi jaaw ñu wax dara ci sëriñ Tuubaa nga wàññi dara buy séddale yaay mujj am wala sax du la sédd te maanaam fan yooyu danga nga yëg ne soog nga ko ndax daf da xolal dafa seey ci sëñ tubaa xam nga bëgg feeg yaa ngi doxe sago rek bëggoo dañ ne lu mag bëgg ci dofu ca booba ak bëggam dafa des sëñ Mbàkke moom sëriñ Tuubaa rek bañoon na ko ba su Cheikh Abdoulaye Ahad Massa di bëgg a wax soo ko teelee dégg ne ko borom jamono dana wax waxtu sàngam gis nga yow mi ko ko wax yaay xarit bi léeg-léeg mu ree la rek nga la nga ban waxtu nga wax ah? bu jamono taal rajo bi buy séddalee itam buy séddalee lu mu doon yaa yaa ci ëppale waaw bu dee gura du ko xar da la ko noon but bu dee xaalis du ko wecc ko da la koy sànni bu dee bëtéel bi la ko dala da la koy xëpp mbokkum sëriñ bi maa nga sant buusa di mbokkum sëriñ bi moom loo bëgg ci moom da ko am keneen ku mbokkal sëñ Tuubaa tam nangul na la te dana la wormaal soxna benn gaabu damaa fekk Kébémer fekk soxna sooda soxla oto bi euh, ñëw Touba Mbàkke mi seere ci bu ñëw soxna sooda bu soxlaa oto bi sëñ bi noppi naa tukki ba keroog mu ñëw léegi soxna mbenn ga bu ñëw bi mu ñëwee sëñ Mbàkke danoo wax ne oto soxna mbenn bi nan ko dugal ci biir kees gu njëkk gi ñu dugal ko ci biir kees gu njëkk mu ne nan ko baase ñu baase ko nga xam ne oto bi rek mooy seexub oto yee léegi di jaar fee di korne moom moom kenn du ko laal moom. ñu baase ko dugal ko ci biir kees chauffeur bi ñu dugal ko fu fu baax di saaf ginaar di ko jox laaj ko lañ nangam nangam waaw ñu ko noonu bi bi soxna benn ñëwee wallaahi xasim nga xam ne du ma la nettali maa fekkee sëñ Mbàkke solatul ñetti morso caaye fo solatul mbaxana yoratul kaala da daal keseet lay def su toogee ay minutes yu néew dana ñëw waxtaan ak soxna si ab diir dellu ci kees gee mu yabal nu biir Kébémer lu fay nekk ci ginaar ak i xar ñu andi ko ganale ko ba soxna si ñaan donc xoolal amul morom xam nga dañ naan Sëñ Tuubaa amul morom Sëñ Tuubaa dafa ëpp waaye Seex Mbàkke Jóob Kalsaan ngel amul morom te bul am complexe man waxuma ko ngir ab sëtam dama koo dund fii ne bu ngeen gisee du ma calculer te te lu danse lu danse danse am ma jéggi ko Seex Mbàkke Jóob Kalsaan a tax ndax Sëñ Tuubaa murit du dox ci 1 plus 1 égale 2 sëñ Tuubaa bu doon calculer du dugg ci géej gi dugg loolu du yëfi nit bu doon calculer dee su ko gas suul bu doon calculer dee su ko taal ci sawara calcul mooy tey am murit de baaxut de sëñ Mamour sëñ Mourtala danoo wax ne ca Italie bàyyi leen calcul te moom intelligent la day jàng mu ne li tax calcul baaxut ci murit da koy téye nee na léeg-léeg Al Azhar programme am 200 millions dañ ko ko jiitoo su suñ ko waxee suñ ko ko waxee 300000 wala 200000 mooy nekk ci poche poche te 200 millions la war a joxe waaye dafa danaan leen dégg ko rek nee na nis kii si rek Ahmadou daal ñëw. dafa am benn étudiant bu nekkoon France li tax calcul baaxul dafa nekk France màggalu Touba ñëw am diplôme boo xam ne day tasanteeg ñu di ko concours bi màggalu Touba mu ne moom ba moom perte diplôme bi waaye day màggali Touba ñu ne ko ab dof nga yow dëgg jóge sam réew di jàng ba war a am lii. te bu jeexee rek nga liggéey mu ne moom day moom moom day màggal si bi mu ñëwee màggal si bàyyi fi étudiants yi bi résultat bi génn ñu def ko ci kaw mu ne leen Ahmadou Ahmadou moo fa yeble moo fa yeble waaw Ahmadou moo fa yable Serigne Touba fa yeble kooku ku ma xam la ma nga Amérique 10 mille euros lay lay lay lay lay am par weer 10 000 ay 6 millions quelque ñam doon jàngat ndaw mën na nga ni ku ci mën a am téeméeri junni amul fi ne xoolal. fi ne gis nga sëñ bi boo bëggee jariñu un plus un égal deux moom boo ci doxee doo am sëñ tubaa Cheikh Mbacke Diop Kalsaan mii musta dox ci loolu xam nga lu mu daa def bis bu bis bu jant bi fenke mu jàpp ne tey ci la war a liggéeyal sëriñ tubaa ba jant bi so mu ne ko dana damaa jattu rek su ma sañoon lu ma wax def ko mu ne ko ma ne yéen waree su leen yëkkati ndax yéen du ngeen aw nit ay malaaka ngeen woon nekk ci biiwaan sëriñ tubaa di liggéey ngeen xam ne dana am ndam ngeen ñaan ko mu def leen nii sëñ Mbàkke sëñ sëñ Abdu Lahat ne ko ah sëñ Mbàkke yaa ngi wax man ba mu génnee mu ne li ma ko wax xam na ko te weddiwu ko foofa la ko sëñ Abdu ne ko yaa ngi fii sëñ Mbàkke yaa ngi fii at moomu soxna Bintu Jóob soxna day Jóob ñoom ñeeg ñun ñii ñëpp dañ ko doon reetaan naan bay bu ñu wëtal ko luy faj tooy ndax bu na bu koy nettali day fëgg dënn bi dañ ko rëg waaw day daanu waaw waaw ku daa daanu la maanaam fi ne boo jiitee mbooloo fexeel ba saf sap ci sëñ bi ndax bala ngaa maanaam ba maanaam mandi doo ko màndal gaa yi waaye boo mandiwul bëgg a màndal gaa yi du sotti moom nag daa mandi woon ci sëriñ Touba tàmbalee ci sëñ Touba yam ci sëñ Touba fee ñu ko denc da koo dencal boppam ndax na mu toll espace boobu fekk na armée yi fees xamuñu fu koy denc te kilifa la ñu gis jal boo xam ne ay xorondoom rek a fi ne waaye boobu ñi mu yor danoo saf sap gaynde sax na ñeme nañ koo ruux ñu ne nan dagg jal bi ban ko daggee muy suuf su weex tàll mel ne mel ne sukkar ban ko ca dencee la gaa yi daal di dem nekk ne foofa moo leen fa bàyyi woon kooku mooy Cheikh Mbacke Diop Kalsane kon nag sëñ Xaadim Gueye na nga xam ne ki niy jàngal ñëw na ci jàng yi muy sëñ Mbacke Diop Kalsane ku mën a fay la na nga xam ne maag yow seq nañ ko démb tey doo ko ñëw nanga xam ne foo mas a jàng tonowu fa fii kenn du fi jàng di dellu ginnaaw na fonk jàng yi bu baax. ñu déglu la bu baax ni ngeen ma ko terale moom mii tabuk sëñ Mbàkke Jóob Kalsaan na ngeen ko ko woon tey jii sëñ Mbàkke Jóob Kalsaan musta ànd ko bu yëfus de xaajale nii boo ko waxee da ñàkk jom lambal sa poos bi nangam nangam te bu la ko waxee rek lim lay wax lim lay laaj mi ngi ci poos bi kon ku fi teew rek maa ngi ñaan ñun ñi ñëpp sëñ Tuubaa faj sunu aajo ci zahir ak ci baatin am na ñaan goo xam ne nag moom lay tëjee sëñ Maxtaar Penda Mbàkke fukki at ak juróomam la dem njee la dem la dem euh, euh, Mauritanie fekk sëñ sëñ bu mag bi bi muy dem xam ngeen ne dandaa agressé sañuy yor addiya waaye moom bi ñu ko dóoree jees yi bëgg nangu addiyam euh, da ko yamale ñu jël bakkanam ñu dóor ñu dóor ko jees yi ba baraamam bi xetañu ba ba tuuti te koo dagg waaye mu dëgër dëgërlu ba dem fajar ga mu àggee la ku tedd ki ne ndax amuñ ñu jóge Sénégal ñu ne ko sëñ Matar Penda day ñëw na mu ne woo leen ko bi mu ñëwee dafa nëbbu loxo bi ngir bëggul sëñ bi gis loxo bi naqari ko Matar Penda da xanaa daa mel ne daa am ñoo tasee ci yoon mu daal di kënëf kënëfal bëgg koo wax sëñ bi ne bërët daal di jóg génnee mbind mu tooy jox ne ko Matar Penda lii kaaraange la bokk kook sa ñoñ xasida googu lool loolu mu bindoon nag moom laa bëgg sëñ Tuubaa assurance ñu ci zahir ak ci baatin fii moom ku fi toog ku ne neel alhamdulilah rabbil alamin kuy perte moom nekku fi kuy dellu ginnaaw it nekku fi sëñ Mbàkke Jóob Kalsaan ku man boppam la bala nga koo woo na ñor xomm man damaa nekk ci Italie bëgg a ñibbisi gis nga sëñ bi ak a ja moom sëñ Mbàkke Jóob Kalsaan ñibbisi may jàng ay kaamil kaamil bu jeexee rek ma jàng beneen kaamil it ne jaayante naa ne ko yaa moom bokkoo ko kenn waaye dama bëgg nga jox ma moyen barke Xaadimu Rasulullah guddi laa tëdd na gàmm nii rek mu ne tëll ak ñuulaay ba ak leel ji sulul mbaxana sol lu weex tal saal bi nga xam ne mooy fi ma dëkkee dafa am benn fauteuil bu fa beraw fa la na fogum toog waaye ci suba sa laa daal di gis baabul xayri ma daal di takk saay ba gàtt di ñëw ku gaaw la sëñ Xaadim Guèye eh, sëñ Mbacke Diop ku gaaw la fii nag say xarit say soppe say bokk ñoo fi ne sànq maa ngi koy nettali ba nga may jàngal wala xada karam naa eh, asafurlaa wakkaanaa xan weeru koor booba mel na ne ay jàng yi amagut kër El Hadj Matar Mbaye laa ko doon enregistré sëñ bàcc toog fii di ko déglu ba mu yàgg ma ne lool de lu ñuy xumtoo daal di ñëw toog fekke ko ma enregistré ko nii ci ab kii nga xam ne mooy kaset bi mu njëkk jàng boobu ba nagee di tamit mooy xaadim ma ma xamoon xës ndax xësida yi mas naa ko yóbbu ci sëñ xaadim Mudu Baara moom mii ne ko ñaanalal ma ko mu ne ko bul fooyee xësida yi ndax xësida yi ku ko fooyee ñu fooyee la waaye ku ko fooyewul des la fooyee te ku ne xam ne ne mi ngi dox jëm ci kanam yàlla na kanam-kanam gën a am bismillah kon nag xasida googu nga xam ne sëñ bi dafa wax ne kaaraange la euh, nan ko bokk ak euh, suñ ñoñ te surtout sëñ Maxtaar ci laa ko jëlee te boo ko dégloo baatu allahu allah lim ko baamu ci biir bari na lool te allahu mooy xaritu sëriñ Tuubaa dafa wax ne bismillahi rahmaani rahim ashraxa nuurullahi wa zahara kalaamullahi wa sabata amrullahi wa nafasa xukumullaahi istaantu billaahi tawakkaltu ala llaahi maa shaa allaahu laa hawla wala quwata illaa billaahi taxassantu bi xafiyi lutfillaahi wa bi latifi sunxillaahi wa bi jamili sitrillaahi wa bi azimi zikrillaahi wa bi quwati sultaanillaahi daxaltu fi kanafillaahi wa sajadu bi rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallama baritu min xawli wa quwati wa taxassantu bi xawlillaahi wa quwati allahuma sturni fi nafsi wa diini wa ahli wa maali wa waladi bi sitrika allasi satarta bihi saataka fala aynun taraka wala